soobu yoonu yàlla il faut jaam bi mu futti mbubbum addunaam futti mbubbum addunaam mooy lan il faut que nga dëddu adduna dëddu adduna li mu lay andil daray adduna du la saaf il faut que nga futti mbubb moomu loolu mooy lan il faut nga dëddu adduna te dara aduna dut la saf nga door a soobu yoonu yàlla foofu nag foofu nag la la bi nekk dañuy bañ a liku te bañ a sàggal cax dàkk nag ci jaamu gu yin fendi di wéy ci ndigal di bàyyi tere suñu kem kàttan di bëgg lu baax di bañ lu bon suñu kem kàttan lépp yàlla tax ñu ko def wute gu ngërëmam rek loolu noonu loolu loolu loolu jaam loolu lañ mën a am nañu def seen kéem kàttan ba mu waxee ni sa diddoo wa xaribu borom xam-xam yi mën nañ ko firi ñoom loolu man na ma ko déggee mooy bu nu bàyyiliku bu nu sàggan waaye da caa teg ne kullun mu yassarun lima kutiba la waaw loolu la ca teg waaw ba jaaxle amee da leen dénk wax leen nañu wara def ñu war ca yem kon ñu góorgóorlu bu baax ci li ñu fendi so yalla rek nu fi suñu kem katan ñu ci diggante bàyyi ak tere di bëgg lu baax di bañ lu bon di jëf lu baax sax ca dàkk daa di yéne lu baax di wax lu baax di jëf lu baax sax ca tax rek la moy mi yi damaa war a wax te am gàllankoor bu mënumaa wax ndax boo sañ boo waxee mu am njëriñ waaye damaa war a wax fii ma toll fa mag ñi daa ga àgg naa fa so romb naa sama juróom-ñett fi teel rawatina nag. te loolu leen mën a jariñu day loo leen mën a jariñu rawatina ñu tudd gi mu tudd tudd sëriñ bi te ma toog ca lool kon war ma wax waaye nag boo sañoon mooy wax day wax day am njëriñ il faut que jaam bi mu futti mbubbum addunaam futti mbubbum addunaam mooy lan il faut nga dëddu adduna أدنى لملاي أندل داري أدنى دوت لصاف فوف رجلاتي يملك